feebar bi le ñu nag moom ba kañ moo a laaj des sources ane ñaareelu doomu aadama te deewaat nañu kon déemu ñaar maa la ko wax maanaam kon léegi juróom-ñett fukk juróom benn de daal dinañu ñàkk seenu bakkan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun juróom-ñett fukk ñaar ci ay gaa bees ñaar fukk benn de ña soowee taas ay gaa yi garaaw la le témoin yéene kaa ne dama ne la Sénégal de waaw ma ngay dox nag ndànk ndànk de wutali na téeméer ñoo xam ne kon dañoo ñàkk seen bakkan maar ko wax yéene kaa gi ne waaye est ce que nekkul ne xeex bi la dañ ne en tout cas xeer yi nga xam ne kon maanaam dañ koo dóor Abdoulaye Diouf Sarr waaw Mohamed Samb de nee na njombar nag loo ko contre contre daal nangul ne mën naa daw dëgg la bu leen neexee ngeen nekk fi di jéem a dóor xeer Abdoulaye Diouf Sarr bi lee waaye jàpp leen ne amul seen jode déedéet sur saane en tout cas ubbi waatu kon Sénégal ak Mauritanie waaw nit ñu ñuul ña de ña fay dund kon musiba mbaa ba kumba di jaanama waar day a day taali Sénégal a jël ndaare xam ne maanaam ñoom ñoo ñu wër ni la ci sous région bi waaw réew yu bëree bëri ñoo ñu raw laa la wax te gis nga suñu politiciens yi ah danañu dundunoo ko musiba mbaa ba kumba l'observateur ne Macky Sall ci boppam waaw xam le ne li lii di xëy neexul ci wàllum koom-koom maa la ko wax projet pétrole yeeg yëpp danañu daal de ñaari at laa la wax maar day taali la ilaha illallah pétrole suul gaz tere xeeñ direct news kopparum corona googe xaalis ba waaw Abdoulaye Daouda Diallo de fees na bang jafe-jafe waajaa ngi koy téye bor bi ci biir réew mi Abdoulaye Daouda Diallo koy fay un milliard cinq jox na ko hôpital Jam un milliard sept cent cinquante jox na ko principal pour kaay bañ ñoo rey quinze milliards jox na ko Sénélec quatre heures yéene ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali dama ne ga ak ab sikiring waaw Kumpetum ak Ambereen waaw bët saalumug réew mi bët gànnaarug réew mi digg réew mi dénkoog soow yëpp ay jafe-jafe la wax looloo jar a laaj parce que am na ci ay compagnie yu bëree bëri kon ci armée bi de commencé waat de ñàkk di ratissé dëgg la critique yéene kaay ne musiba mbaaba kuma bi nga xam ne kon am ca gàddaay gee massacre la de dëgg la waa gàddaay de nee nañu kër rek mbaa barki yonent bi kër mbaa rek lu too ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñett ci ay boromi kër ah dañ doon grève de la faim di xiifal di laaj kon seeni juróomi hectare yooyee waaw waaw nga borom kër yooyee waa lii luy ndee moo jaaxal ñëpp benn quatre heures yéene kaa ne en tout cas victime ya laaj ma fan la mujjee ah. ay a ay waay jile ay waay ca boppam waaw ca gàddaay googee ah. daal googee ca diwaanu ngor mbambi lor ak woon waaw waaw mer goo xam ne kon jéggi na dayoo dama ne la wàllum suuf si la kon ci bomb la toog te boo sàgganee dana dak dé la bombe foncière waaw dama ne la boo sàgganee kon dana explosé mar day taali maa la ko dama ne la police ba démb kon sa kat ay gëlee ay grenade lacrymogène ah la ñu jàpp kon ñooñee door ko te ñooñee kon dañ doon grève de la faim waa ngor ke nee nañ seeni suuf lañ soxla mbaam mi loor gëlee njabootu jàll picc ga ca boppam waaw ñooy naqarlu kon homme d'affaires yu ësle yi a nekkoon jeunesse ba universitaire yi lée taxaw na ngir xeex wàllum littoral bi laa wax tribune yéene kaa ne en tout cas Abdoulaye Sow de responsable APR la ca Kër Massar waaw demoon na ca gàddaay googe doon leen ma saw xamal na leen ne leen problème bi lée dootul yàggati dana saafaru alhamdulilahi rabbil alamin Abdoulaye Sow yamu ca ndaxte nee na président Macky Sall ci boppam ko nana saafara problème bi nga xam ni kon moo dal waa gàddaay daa war a gaaw de tribune yéene kaa ne gis nga manifestation ca gàddaay waaw ca Koumpentoum ah militaire invalide yi le maire gi nga xam ne mer nañ ko dee dama ne la lii ramte nga wala jëm da bu fa amee kar du fa gaaw génn laa la wax maa la ko wax te moo ni ca jamono joojee doomu jàngoro ji dee corona ji ah tey la gën a tàng jër te li koy mandargaal dee mooy aji màkka ren du am mar d' itali le quotidien yéene kaay nee na waa arabie saoudite dee andi leen nañu aji màkka gi laa la wax critique yéene kaay ne xanaa ña fa Sonko dee daal dinay woo nag ndaw ne leen ñëw leen mbayi nañ leen dellu ca tool ya du dara nguur gi def aha duudu ko ne waaw parce que Ousmane Sonko bu dee li muy wax da koo gëm daa sérieux ah day jël téeméer wala ñaari téeméer ci ay hectare ñëw fond gi la ñu daal di koy financé xanaa man sax mën naa koo garantir ñu daal di koy jox ay suuf mu daal di ko dem bay waaw kay waay duudu ko yemu ca parce que waaye fond sib ji waaw nee na Barthélémy Dias ak ñoom Ousmane Sonko ñu lée maag ñoom a bokk génération suñu bëggee Sénégal gi lée dañ koo war a droit waaw taxandeer dong la de waaw waaw réew mi quotidien ne bëccëg boobe la gaa yi war 23 juin esprit ba lañ trahir tribune yooyu ne kaay ne moo ne 23 juin jooje waaw la askanu Sénégal kon nangu woon seen indépendance les si ko yéene kaay ne gis nga 23 juin jooje 2011 waaw révolution ba de ne ko yëkkati woon ñoo ko rogas ba mu xóot suul ñi nga xam ne maanaam ñoom ñoo ca nekkoon ñëpp ñu gën a bëri ñëpp léegi ñi leen maanaam ña nga ca nguur ga dem nañ ca makki de yàgg na Mamadou Mbodj doon ci yëpp mujj gi daa mujj bàyyi Fadel Baro waaw nee na autorité politique yi la lé ñoo gas ba mu xóot ñu daal di fare kon 23 juin parce que dañ cee diggante ab système bi lé nga xam ne mouvement 23 juin jooje moom la xeex Seydi Gassama waaw nee na gis nga mobilisation boobee moo yóbbu Macky Sall ci nguur gi laa wax ak yaakaar gu bëri waaye ginnaaw nag bañ ca tegee kon juróom-ñetti at tegeetul lu bëri de informatique day mujj dañoo bàyyi na commissaire Boubacar Sadio termine yéene kaay ne dossier mba kay classé nañ ko sans suite dossier John Seck ba de le quotidien yéene kaay nee na ñaa àndoon ak John Seck nañ leen juróomi at benn milliard ci amande critique yéene kaay ne John kay moo ca jëlee ndam ah waaw waaw moom libre na léegi bàyyi nañu ko ba nuppi nag fanweer ak ñaari million moom ñu jëloon de dañ ko koy dee loo ñëw libération yéene kaay ne dossier am na vingt deux ans laa wax ñaar fukki at juróom-ñeent Cheikh Yérim Seck ne xaalis boobee waaw la ko taxoon a mooy pour mu dem fay lu yaas sur côté yéene ñeen fukki at ak juróom benn ci ginnaaw bi professeur Abdoulaye Bathily doon si nag fédère bu ba mu set wet daa futti fédère bu de waa ndar de ñii nee nañ na fédère bu daanu ñii ne fédère bu daal te ndar la bokk <laughs> tey estati xaw ma xërëmu fédère bu bi ak lu waa ndar mën a wax wax wax wax wax wax wax wax wax buñ fàtte pétrole bi rek déedéet parce que suul gaz du ko teree